Thank you. salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internetu sans limite TV mbégte ak joie seen doom seen xarit Fatou Mbaye nee naa leen lépp luy actualité lépp loo xam ne people la tubaar fakal la seen doom seen xarit dina ci dox tànku jéego nee naa leen femme brave femme nga xamante ni euh, soxlawuñu daraay góor femme yi nga xamante ni dañuy teel a xëy euh, di guddee wàcc kenn ci ñoom tey laat seet si euh, mu ràññeeku ma yàgg ak moom nag nee naa la lu yàgg lu ne dëgg la su ma leen ko waxee seen xel war a dem ci ki nga xamante ne mooy Fanta Mbuub Fanta Mbuub jigéen bu mën góor teel a xëy guddeewaat ci sama amika bi nee naa la yow lu yàgg lu ne dëgg la booba ay bitik amul booba ay tukki amul macha allah nga nekk ko am jom euh, ku gëm sa bopp euh, tubaar fakkaala tey bu ma la seet say war na Fanta Mbuub maa ngi lay nuyu. Fatou Mbaye maa ngi lay fay sama xarit bi yàgg ak man nee naa la man a yow dañoo yàgg boobu dara amul woon palaas yi ñëwul woon tukki yi ñëwul woon dara amul woon maa ngi yow nga gore loolu na xam sa nit nag tax jamono ji gore moo jafe ci réew mi sama xarit bi waaye boobu ba tey ba ma jàppee ba tey nga téye ma fanta mbum nii fanta mbum naa boobu ba tey nga ne ma doxee leen nii doxee leen naa yëgoo sa bopp yëgoo si sig sa Fatou Mbaye dëgg ne sama xarit bi fay naa la loo ma nuyu rek fay naa lu ko raw. Fanta Mboup euh, ginnaaw bi nga nuyoo waa àddina nuyu waa Sénégal nuyu suñu ami internet sans limite TV yi nee naa leen bu brave la femme bi nga xamante ni soxla yu daray góor nee naa leen lu yàgg lu ne nag dëgg la tey ñi ñoo fekk si ko fi nga xamante ni mooy place am euh, ñi ñëw saafante ak moom waxtaan ak moom ndax nee naa la tepp-tepp boo gis yuréet ba da cee baax ñi bëggoon xam jaar jaaru Fanta Mboup ñi ko bëggoon a xam Fanta Mboup fu mu débuté ñi bëggoon a xam Fanta Mboup ci nan la sokkeekoo ba taxawal tey lu mel nii parce que c'est jigéen taxawal lu mel ni Fatou Mbaye waa man fi ma débuté dafa métti chaque jour moo ko te dara ëmb la ci ndax yow boo toogee fekk nga marka Adel Cissé fa laa yàgg nekk nekk fa doon def mbindaan jaar fu métti damay xëy di liggéey ba guddi ba minuit ma fomp ma raxas ba sonn ba guddi jot duma sangu jël sama sër rek daal di tëdd rek daal di nelaw. da nga doon liggéey jàng ko. mbindaan laa njëkk a def sama aar. dama liggéey mbindaan super yi dama cee rapante surtout Aline Sow foo bere naa kër gu ne. liggéey naa fu ne faatu Mbaye xeebu woowoon dara pour dimbali sama yaay pour suturaal sama yaay pour jàppale ñëpp barki Seydouna Muhammad samay famille gis nga sama famille maa ci gën a ndaw maa ci gën a nekk caat waaye day mel ne man maa ci maa ci mag barki Seydouna Muhammad damaa daw ba lii ma egsi nee naa dama koo liggéey dama koo ñafe moo tax xale heure bu ñu di wax dama naa li wax xamoo leen ko lii ma dama koo travail ay donkeer dama koo liggéey dama yeewu 5 di ma te dem xëy jël super di mindaan di liggéey ka wàcc kon ça jël dire lii ma am nii dama koo liggéey ba egsi fi Fatou te kenn duma ko yàqal. Fatou mu ba doon fàttaliku sa jaar-jaar sa liggéey jànk sa jaabante sa souffrance bi nga xam ne nga ko li la ci gën a marqué ba tey euh, nga gën a fas jom euh, liggéey sa bopp loolu lan la. billaay li ma ci gën a manqué Fatou Mbaye dama toog euh, di liggéey bu ma toogee gis sama xarit yëpp am lu baax. te liggéey leen ko may ñu di tere seen yaay man Fatou est-ce que barke Serigne Babacar Sy musu musu xam ne man man jaan bu bëgg jaal taam dinaa egsi fii ma moo tax may leen yàlla mën na lu ne mhm. yàlla mën na lu ne baram karaw gu ñuul ñàkkul dara man jaal bu ba jaa heure bi daaw kenn xamuma heure bi daaw topp ma woon ci rangi kon yàlla bu ma defee teral ma heure bi daaw ma topp toog ci rangi kon dama koy sante yàlla sante ko sama ñaari waajur mhm. li na ci gën a marqué li ma ci gën a marqué loo xamante ne heure boo ko fàttalikoo da ngay gën a am jom da ngay gën a fas jom billaay Fatou Mbaye li ma ci gën a marqué mooy euh, liggéey jànk bi ma doon def da ci kurti kurti may ñëw suma ma liggéey jànk ba sonn Fatou Mbaye am yoo xam ne damay liggéey si ñoom ñu méttital ma sonal ma xoola tey doomu baabaay jël nit di leen fay yàlla mën na lu ne mhm. loolu su ko xalaatee damay gën a am fas jom mhm. damay dégg lu ne waaye tool damay gën a fas jom Fatou mbay mhm. man nee naan liggéey bi mu ne ma naam dama ciy gën a fas jom barki Serigne Babacar Sy lan ngay tey ñi ngi liggéey jànk te tey mën nañ découragé mën nañ jàpp ni euh, seen àddina dinañ duñ mës a toog ba toog ci donkaas yi lan ngay ban message ngay lancé ñoom. ah yéen ñi nga xam ne nag yéen liggéey jànk yi lu leen métital muñ leen ndax yàlla mun na lu ne gis nga man mi dama doon minaas ba sonn di tëdd ci ay perron fan dama ko fàtte ma ko am na kër goo xam ne koo xam ne dama liggéey noog mindaan mu dem ba jël ma muy liggéey mindaan ñibbi Europe Espagne màgget ba télé yeneen kër xam fa laa doon ci ay balcon loolu duma ko mës a fàtte kon yéen ñiy liggéey mindaan dama ne leen dara jomb loo leen jàpp rek na dëgër boo leen jàppee rek yàlla na leen dimbal si na leen dimbali barke sëriñ baax mun na ma wax ci lool billaahi boo ci waxee sa xol day billaahi day xaw a tooy euh, ami internet san limite yi fanta bu tey laa seetsi woon nee naa leen te ba tey duma bàyyi damay xuus ak moom waxtaan ak moom ndax waxtaan bi dafa war a laaj fantôme bu yamoo ci li nga xam ne mooy commerce sa commerce laaj na di nga jaay cheveux dinga nga jaay dàll di nga jaay sac lép loo xam jigéen da koy soxla rek fantôme da koy jaay rawatina nga yor natt te natt dafa metti di nga dégg ay wax dinañ la sànni ay trac euh, nan ngay dundee loolu. i eh, Fatou natt yi li ma ciy daj. mag yàlla rek ko xam. ciy dégg lu ne. ay lekk nga sama xaalis. ay jël nga sama xaalis te Fatou Mbaye dama bëggoo xale yi ci TikTok bi. pour meeri natt yéen laay waxal yi laxi ngeen a natt meeri natt yi laxi nañu arrêté nee lax waaw dafa amee natt yi lax ñu may wax xam na seen bopp. ba may sos natt ci TikTok bi benn mbindeef sañ ca toog sa sas natt boobu ñoom ñu ngi ci TikTok yi xam xamuñoo luy TikTok. ba may sotti natt ba cëg 2 millions par atelier par salle ba million yi ñëw ba 10 millions yi ñëw ba 20 millions yi ñëw kon xale yi ça veut dire yéen ñi ñëw mujj sotti natt dama bëgg ngeen arrêté da ngay nangu soog du may la maay seen yaay duñ nangu waaye ñoom dañuy nangu Fatou Mbaye dañuy nangu jaan bu bëgg jaacaam loo ti fam kenn yoragu ko kaay diw yaa ma yoreel natt amagul man fu ma neex daagu nee naa nattu teralu ma natt yoru ma natt dundalu ma ne naa natt bala nga kaayoo day fekk nga dëkk kër gu baax natt bala nga kaayoo fekk nga suuf natt bala nga kaayoo day fekk nga reeg ka damaa régg démb tey toog a ñëw tante boobu lu waral loolu danga yor natt ñi danga lekk xaalis bi parce que gis naa nga def benn sortie ni yow natt bi yóbbu la nga tukki <coughs> lu waral loolu da nga dafa am ku ñëw ñu ne da nga lekk xaalis bi dama ko mbëbët Fatou Mbaye sama sin bi dama ko mbëbët dama ko mbëbët ba mu ñor toog ko ba mu ñor doog doog dem tukki xam nga xale bañ tëbee tëb nag di wax ay waxi tukki ay waxi Dubaay lu ma leen wax Dubaay dama fa dem ma ci këram garaas moom fa yóbbu te loolu laa fa def waaw ah, da ngay xas sama fa laa bëgg a delluwaat la bis mooy voyage yi ma ci këram garaas moom ma yóbboon Dubaay te fa laa jaa fa laa escale bu ma fay demandé Dubaay laay tëggaan ndax bu dul dara sama xarit bi daa Dubaay maam Njaay savon noonu mi ngi lan ngay wax li nga xamante ni tey euh, dañoo jël seen xaalis jox la ko nga nekk seen meeru natt euh, message yu bari euh, ñu gis nga def benn sortie wax ni yow dañuy wax ni da nga lekk xaalisu natt pour dem voyage loolu tey nan nga ko mën a leeralee sénégalais yi nga xamante ni tey ñu ngi lay seetaan parce que en général fii Sénégal ku fi yor natt nga tukki wala nga yor fi natt war a teggil ni teggiloo ko am na benn baat bu la adressé en tant que maire natt tey war nga am mën a am benn message boo xam ne da nga koy lancé parce que gis nañ nga def sortie ba wax ni yow xaalisu natt yoru la xaalisu natt taxul nga tukki fante dama bëgg nga leeralal ñu sénégalais yi pour ñu xam mm-hmm. non sénégalais man leeral naa leen Fatou Mbaye nee naa leen man naqari ma dërëmu kenn lu ma leen wax sax di sama live man damaa naqari de du ma yore dërëmu kenn ku ko natt ci heure ma teggal la ko ci heure ku ko natt ci heure du ma la teggal ci heure mm-hmm. da ngay toog ba natt bi jeex chaque jour nag ñu ne ma man dama fi yoon natt jàmbur yi jeex ma téye seen xaalis lekk tu ma leen ko jox mm-hmm. musta am mais natt yooyu sax ñu yàq sama de mu saam ku natt natt Fatou Mbaye ba natt bi jeex ba natt bi jeexee la nga fa def dama la koy jox yàlla teral na ba xam nga ñaata groupe laa yor Fatou Mbaye ñaata groupe mille groupe laa yor te dara duma ci réer natt yi géré tuma dama jël ay xale ñu may géré natt yi jël naa trois personnes ñoo xam ne ñoo may géré samay natt kon lan may problème bi ko war a teggil ku ma ko war a teggi teggil la dëgg damay teggal ay nit ba fii teg man maa nekk koo xam ne doxuma ci preuve bu ma doon wane preuve nee naa la sama compte tik euh, kii bi tiktok ba dañ koy bannir ndax doxuma ci preuve aw ma jot boo xoolee sama message day toj kon ça veut dire man du ma ñoom ñoom bu ñu duggee sax di wax na ay man la mère natt man la siir bi nañ arrêté maay seen yaay ba may sos nattu tiktok boobu xam xale ñu ngi taxaw ci territoire di taxaw di laaj ay 2000 2000 kon nañ arrêté man ay donkee dama liggéey natt teraluma <laughs> fantôme bu ay doon kee loolu mën na maa rey euh, fantôme bu du ma toog fii ñu waxtaan suñu waxtaan large euh, nga nekk femme battante femme boo xamante ni comme ni ma ko waxee rek nee naa la teel a xëy guddee waaj te du ma waxtaan nag ki nga xamante du ma saafonteeg ci yow ni euh, moom Mame Ndiaye Savon du ma ko woowee sax Mame Ndiaye Savon léegi Mame Ndiaye Dubaay laa ko woo mais Mame Ndiaye ba vol bi naree dem rek nan ko faa bàyyi loolu ku fekkew loolu aéroport Dubaay loolu kenn mosu koo gis Mame Ndiaye heure na la sa diggante ak maam Ndiaye. eh sama xarit la. maam nee naa saytaane moo ñëw waaye maam Ndiaye savon sama xarit la. man ak moom nee naa la ba dara du dara la woon. amu woon place ñëwul woon. ñëwul woon. sëbëy ñëwul woon. oto yi ñëwul woon. maa ngi maam Ndiaye sabo ñu nekk ci marché rek. bu solee garam bu baxar rek ma sol garam bu baxar ñu nekk ci marché fa la ñu dugg fa di jël ay fukki dërëm café Touba ñu koy bokkoo di ko kon maam Ndiaye sa bopp ki wax sama digganteem da ngay arrêté dañoo xamul rek te Fanta dama seetlu ku laal maam Ndiaye da lay laal. ku ma ku laal maam Ndiaye danga may laal barki Serigne Babacar si ku laal maam Ndiaye danga may moo tax ba maam Ndiaye saytaane yëpp dem tafu si maam Ndiaye di wax waaye ba ma jubóo ak maam Ndiaye ku ne di ma woo may la bu kenn woo ndax yéen ñëpp ay saytaane ngeen. Fanta euh, sa diggante euh, ki nga xamante ne euh, mooy mooy mooy mooy Zal mbay bi nekk ci Mame Ndiaye parce que gis nañ ni biñ ko arrêté fekk fi Mame Ndiaye mais yow fii la fii fekk gis nañ nga def benn sortie di ko mettitlu non Zale Mbaye moom man Zale mbay ñoom papa ñoom Pape Sall ñoom ñëpp ñoo doon ànd di toog place Pape Sall Zale mbay sama xarit la ba ma gisee ni Mame Ndiaye Savon nekk fi dama ne damay dem taxaw comme tànki Mame Ndiaye Savon nekk fi ma dem ba police ba fekk ko fa ñu tombé ñu koy enquête ca kaw ma taxaw commissaire bi ma ñu dugg maak mbay Ndiaye ñu laaj Zale Mbaye si la wàccee ñu ne leen Zale mooy ku yow Mame Ndiaye ñu ne ko waaw mu ne ko non ki amul problème xale la ma ne ko kii boo ko xoolee nga xam ne xale liggéey rek la xam te Zale Mbaye xoolam moo ko wuy si ba xam ngeen loolu dafa bëgg liggéey lu mu wax ne Fatou Mbaye magam bi barki Seydouna Mohamed xale bu ñemee liggéey la daal moo tax yàlla da koy lafa cat xoolam moo ko wuy si police ba barki Seydouna Mohamed xanta mu du ma toog fii ba jógee fi taw waxuma sa diggante sa yaay eh, gis naa ne am ngeen benn complicité yéen ñaar ndax bi nga toogee di waaj def émission bi rek mi ngi naan la jaal mbuub takkal sa oor yi ndeysaan yéen ñaar seen relation yaag non sama yaay moom boo gisee da nga naan man la gën a bëgg ci doomam yi vraiment barke Serigne Babacar dëkkuñu man ak moom waaye démb la fi ñëw waaye boo ko gisee da nga naan man la gën a bëgg bëggul dara métti ma bëggul dara naq ma bëgg na fu may fekk sama morom bi ma gën sama morom ma raw leen sama yaay aw ma fayam Fatou Mbaye sama yaay rek may liggéey keneen taxul muy liggéey sama yaay rek a ma ñor année boo fàttaliku sa yaay sonn sa yaay sonn nekk ci ay xat-xat ba boo ko fàttalikoo doo bëgg ci dara loolu ban année la loolu lan la. loolu su ma ci waxee damay dimbali ma rek loolu la Fatou Mbaye loolu mënu ma cee wax ndax sama yaay dafa nekk koo xam ne. su ma mais Fanta mais Fanta mais Fanta di nga may waa sans sa xarit Fatou Mbaye ngeen yàgg may ma loo loolu lan la loo fàttaliku sa yaay lu mu dund lu métti loo xamante ni tey soo ko fàttalikoo waaw mooy loolu. billaay Fatou Mbaye sama yaay xam nga mënu ma cee wax. Fanta xam mënu ma cee wax. sama yaay bu ma laajee xaalis aw ma ko sax damay mer sama xol day tooy. barki Seydouna Mohamed sama yaay moo tax lu ne liggéey naa ko vente en ligne laa njëkk a def sama kër ngir sama yaay bugguma bu fa nekk ak ay nawleem man ci famille bu baax lañ nekk ci famille bu baax a baax lañ nekk waaye doole yamul waaye ma ne sama yaay ji fii lim nekk nii faaw ma jële ko ci man te loo fàttale woon ñu loo fàttale ko si sa yaay loo xamante ni da lay gën a yokk jom loolu lan la fanta fàttali ko rek non ma fàttali ko sama yaay dama xalaat ne euh, benn jour mu laaj ma xaalis loo xam ne da ko soxla woon aw ko woon. lan la woon. da ko soxla woon am aw ma ko woon mu laaj ma ne ko dama fànta damaa bëgg nangam damaa bëgg nangam ma ne ko yaay ma ne ko naa ma ne ko waala amul ndox ma toog affaire bi métti ma mënu ma sax wax. Mhm. billaay Fatou Mbaye mënu ma wax billaay. laaj la lii laa bëgg amoo ne ko aw ma lu ma ko jox. lan la woon lan la woon loolu. non loolu ma cee sori ndax sama ci sori damay jooy. billaay walaay. léegi nan nga mujj rek après sa yaay nga ne sa yaay amoo. ma ne ma ne waaw ma ne sama yaay aw ma ko après mu ne yàlla baax na. yàlla na yàlla sotti lépp sama yaay gis nga tukki dama koy yàgg yéene heure bu ma ñaanee visa ñu fausé ma Fatou ba may jug di ñaane visa benn xaalis sañ ci duggoon ñaane visa te man nee naa la bëggu ma dem dëkk yi ndaw sama bët dafa rëy dama bëgg fu may voyage daan ñaan visa ñi lay ñi lay rejeté mhm. dama bëgg di dem fu sori billaay wallaay man bëgguma bu ma demee di ñaan visa sama yaay su ma ko waxee mu naan ma yàlla baax na yàlla baax na daal. Fanta. ndeysaan Fanta naa la euh, doom doom euh, xam na lañ koy waxee dama xaw a jaxasoo sax parce que man ku ma xam-xam ni noonu laa bëggee sama yaay Fanta mu nee na bu muy sonn yaayam. Euh, lu muy ñafe yaayam euh, anecdote boo xamante ne fàttaliku na yaayam sonn yaayam soxla dara laaj ko mu ni ko yaay tey waalo amul ndox ndeysaan looloo ko jooyloo nii euh, nee naa leen doom ndeyam da caa dëgër bu koy nàmpal da koy xool ku ku baax la nit ku baax la nit ku yàgg am jom la nit ku yàgg gëm boppam la ndeysaan tey bu taxawalee lu mel nii yoon la man mi nga xamante ni ba ma koy xam booba dara doonu dara ma ñëw seet si ko waxtaan ak moom Fanta tey yaa ngi sant lu metti lu metti yaa ngi toog nii tey di ko nettali sant yàlla billaay sant yàlla moo tax ma ne borom këram gu ñuul yàqu dara Fatou Mbaye mu fi ma woon xam ne man jàll ba jàll tam dinaa egg si fii ma egg te ay ay yu ay kii yu bees mu ngi ñëw nañ ma may fekk ay fan. Mhm, ay yeneen surprise mu ngi ñëw xaar leen bu bëgg fu ne kon ça veut dire li may wax leen man nattul yu teralu ma man Fatou Mbaye damay liggéey damay ñafe. damaa yor samay doomu mbaay ma yor samay famille yoo xam ne am na ñu ma bëgg am na ñu ma bañ. am ñoo xam ne dañ may retaan sax fugguñu ma. bëgguñu ma avancé. man góor defalu ma lu ma am maako ko ñafe sama bopp ba ma jënd sama oto bi maa taxaw jënd ko 15 millions ñu ne ma ci natt yi laa ko jëlee nangam sangam kon ça veut ba ma sancee place bi dañ ne xaar natt place natt yi laa jël ubbee ko place kon booba tey ana bagage yi ñaata weer xale nañ arrêté Fatou Mbaye il est temps ñu te bàyyi yàqante bi surtout surtout ñun femme de battante yi surtout arrêté leen ngeen bàyyi yàqante bi ñun liggéey rek lañ xam depuis ba ñuy ndaw amuñu woon dara xoola benn yàlla dafa def loo xam ne benn jour Mamou Ndao dafa ma woo appel vidéo ñu nekk ci TikTok bi def laay Mamou Ndao toog ci voiture ma toog sama voiture Mamou Ndao dina. Mamou Ndao toog ci la nga ne Mamou Ndao toog ci la nga. Mamou Ndao toog ci voiture am. voiture <laughs> loolu dafa neex Mamou Ndao toog ci voiture am. Mamou Ndao wax mu ne ma yàlla mun na lu ne ma ne ko yàlla mun na lu ne ma am xoola tey mhm. buñu doon yor xaar dugg ci super ak yi tataay anamu tey duñ ne kenn puusal ma toog mhm. kon yàlla mun na lu ne Fatou Mbaye billaay sama xol bi dafa fees. ndeysaan mënoo bi moo la jàpp. mais période tabasi bi euh, dangeen ngeen di saturé greffage yaa ngi nii façon cheveux boo bëgg euh, wàcce nga ko fii ci Sénégal waa euh, pour ñi nga xamante ni tey say soppe lañ say fans lañ yow rek la ñuy topp bagage yi lan nga ci wax. ah bagage yi ñëw rek xale yi nee naa leen ko am sax loo amunte am ma jaale suba man maa nekk koo xam ne xale jigéen ñi damaa bëgg ñu am jom Fatou lu waaye am rek bu ñëwee ma jaay ko suba. ndax dem ba tey 5 de matin laa tëdd instant yi damaa commencé veillé téléphone yi day sonné message kenn xamul lu mu toll sama groupe nati sax dama am temps sax pour dugg ci ndax événement bee tax waaye nee la ñoom rek laay topp xale yi ñoom rek laay topp topp ma keneen waaye damay sant waa TikTok bi Fatou Mbaye Fatou Mbaye nee naa la bu ma xasee ba siiw ñëpp xam ma waa TikTok bi la aw ma seen fay waa diaspora bi aw ma seen fay ñoom daal lafcat ñoom rek ak waa Sénégal xale yëpp ma bëgg barki Seydina Mohamed billaay ñoo ma doole jàppale ma aw ma seen fay billaay wallaay ndeysaan am internet sans limite yi euh, fantôme bu tey laa dalaloon nee leen lépp loo xam actualité la gisoon nañ ko mu def sortie maire wax li nekk ci moom génne nekk ci xolam parce que nit kese la tey nag toog nañ waxtaan ceeg moom mu wax ñu fay ni mu demee affaire yi ni mu demee ak sans limite TV yi nee naa leen mbégte ak joie lépp loo xamante ne rek actualité la lépp loo xamante ne rek people la seen doom seen xarit Fatou mbay euh, dañ koy jox euh, mu tàggatoo am di jàmm yi nee la feccum liit su neexee nday jaatee ca mbag ya fantôme boobu am nañu nekk ci ginnaawam ñoo xamante ni ñoo koy dooleel ñoo xam ne ñoo koy jàpp jàppale tey bu bougé dem tey ñoo ñooy nekk tey ci place bi ñu bàyyi ko mu remercier ay am di jàmmam ñu bàyyi ko mu nuyu ay soppeem mu bàyyi ko mu nuyu ay xaritam ak am di jàmmam Fatou mbay waa maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di tàggatoo waa Sénégal yéen ñëpp maa ngi leen nuyu du leen fay nee naa leen maa ngi nuyu sama am di jàmm yëpp maa ngi nuyu sama assistante yi nga xam ne ñoo géré natt yi sama ñetti assistante yi maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu nekk ci place maa ngi ziar ñoom papa ñoom aada bës boobu ba ma ñëwee tooguñu xale yi am jom di ma jàppale barke Seydina Mohamed waaye dama ne leen Sénégal mu ne naam ma ne leen yàlla mën na lu ne ndax xam ne yàlla mën na lu ne man Fanta Mbuub Fatou bay bala maa tàggatoo loolu dafa maa gën a métti yàlla xamoon te dinaa jël ay ba di leen fay damay sant yàlla kon ku ne sant yàlla war na jaam dara jommul doomu aadama Njaay yéen Sénégal maa ngi ziyaar ñëpp nag du nuyu ñëpp di baalu ñëpp àq bu nekkee dama ci wax lu ma naqari li leen naqari maa ngi baalu ñëpp àq ndax mënoo moo wax wóor na yàlla maa ngi ziar ñëpp di groupe sama groupe continu maa ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu ñëpp sama fans yi waa TikTok waa diaspora bàyyu ma kenn waa Sénégal bàyyu ma kenn maa ngi ziar Anta Diallo mi nga xam ne moo téye sama natt mu téye na dix groupe maa ngi ziar Mbaye Yaara ngi téye onze mi nga xam ne moo ci gën a ndaw sama jabar mag la mariage quand ah mariage bi bëgg naa jëkkër ah ki fi nekk dama koy woo ki fi nekk bu nekk yaa ngi dégg ñëwal mariage léegi. ki fi nekk wala fi nekk. ki fi nekk. kenn fi nekk ki fi nekk. na ñëw. na ñëw pare na ñëw a naa tokkool gi. Ah. ay Fatou Mbaye bis bu ñu may takk ma ne jaal bu bëgg jaajëf. mais mais wax wax ci français waxoo bu ñu may takk ba ma naan ko lan. woo woo ko woo ko mu ñëw takk la nan la koy waxee ci français. nañu koy waxee ci français. Ah. viens. viens viens viens <laughs> waxu ñëw takk la. ñëwal takk ma. bien assis nga takk ma. ah ah. wax mooy lan épouse-moi. bien uh-huh. épouse-moi nag. épouse-moi namm naa jaara baaraam bi namm naa kol bu weex bi nag. heureux na heureux ménage dama ko nam mu takk jàkka rek laa nam Fatou mbay ah maa ko nam na xale yi ni ñuy sëy ak ma leen maa leen dàq sëy nag Fatou Mbaye barki Serigne Babacar si ah daa war a ñëw ñëwal Fanta mi ngi lay woo ñëwal <laughs> non kontaan naa la waaye seen télé bi benn moom sans limite mi ah yéen xale yéen leen mën Fatou Mbaye nañu arrêté micro bu ñu ma tiimale dañu ma doon tiikale ay micro yoo xam ne doo am sax air seen micro yi daa am ay kilim waay yéen ñi def émission yi mënoo leen boo la ñëwee rek jox ma seen micro weñ di ma maas arrêté la ñoom Fatou Mbaye man ami internet sans limite yi euh, sans limite TV euh, mbégte ak joie nee naa leen actualité rek euh, kii nag sœur la lu yàgg nag lu yàgg lu ne dëgg la nee naa la booba ñun ñi kenn yéegu ci avion kenn xalaatu ni dinañ tukki dama ko ñëw macha allah mu nekk nit ko am jom femme battante fem boo xamante ne femme bu brave la nee naa la macha allah bitig baa ngi nii nag xeetu baax baax boo bëgg gis nga carax yi tubar fakala macha allah see jaal mbuub ak jaal caam waa nee naa la xeetu baax baax bi am na couleur yoo bëgg ah, euh, lépp loo xamante ne accessoire jigéen la soo ñëwee ci Fanta Mbuub di nga ko am ami internet yi sans limite TV seen doom seen xarit tey nag euh, sama doom tey ñëwul ah, Mouhamed la àndaloon tey ah, moo ma gunge woon moo ma dooleel tey di leen jox di daje ci beneen artist ak beneen ndaanaan ak beneen jigéen bu mën góor rek macha allah nee naa leen yéen laa fi nekkal sans limite TV mbégte ak joie ah maa nag tey moo génn fii borom ridis sama xarit bi sama amika bi tey moo ma dooleel Sadji ma ah génne ma fi tubar fa kàlla maam jaara sama xarit bi kenn du yow. <laughs>